bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain yi ñuy topp ci tv noo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di dellusiwaat ci jataay yi nga xam ne ñu ko ko loon lépp yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci waxtaani ay jaar-jaaram ci toftaloo tàmbale woon ko ci càllalam ba wax nañ ci lu bari ci ak mbokkam ay mbokkam ci wetu waajuram bu góor ay mbokkam ci wetu waajuram bu jigéen ñu gis ne ku tedd ay mbok la ku tedd ay waajur la waxtaane woon nañu ci gana ak jamonoom la ci xewoon lépp waxtaanee bu baax a baax a baax ginnaaw bam mu gënee jamono fi nga xam ne jaar na fa ak loxo yi nga xam ne jaar na ci ba sunu jataay bi mooy juróom-ñetteel bi jataay incha allahu taala ñu war cee waxtaane nag fa nga xam ne fa lañ yemoon ca bind ba foofu mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tollee ci diggante ñaar fukki at ak juróom jàpp fanweeri at ak lu teg loolu nag waxtoon waxoon nañ ca la ca jiitu mooy bam nekkee ci loxoy baayam bu ndaw boobu ñuy wax abu taalib abu taalib mi nga xam ne mooy waajuru ñeenteelu xalifa di sayduna ali radiallahu taala anhu wax nañ ni nga xamee ne noonu la yàlla dogale dogal bi mu wàcc ci abdul mutalib mu wàccu liggéey mu faatu bi mu faatu Abu Talib mii moo yor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yor ba gën a rafet taxawaay ba gën a rafet yor goo xam ne gu ànd ak yërmande ak cofeel ak gu wegeel gu mat sëkk comme na nga xamee ne noonu la ko ko waajuram Abdul Mutalib mi nga xam ne moo jur Abu Talib dénkaane woon muy moo joxe woon ndigal ci ne Muhammad mii moom Abdul Mutalib bu fi faatoo bu fi jugee na ko Abu Talib yore daal di jël ay kàddu yu ndénkaane dénk Abu Talib loolu lépp suñ bind yi weesu waxtaane woon nañ ko ba waxtaane woon nañ it nim nim xamanteeg soxna su tedd su màgg soxna soo xam ne bokkoon na ci ñi gën a siiw ca màkkatal mukarrama siiw ci lu baax siiw ci daan dooleem siiw ci daraja ci fulla ak fayda muy sayyidatuna Khadija radiyallahu taala anha ba wax nañ sax ni nga xamee ne ca bind ba lee ñu mujj wax noonu la soxna Xadija sàkkoo woon ci yonent bi ak i mbokkam mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa moom Muhammad ibnu Abdullahi mi mu denc ko ngir ay jikko yu rafet ak i màndarga yu bari yu wane lu baax lu mu gis ci moom yu mu seetlu ci moom donte sax soxna si mage woon na ko ay at yu bari yoo xam ne tolloon na ci fukki at ak juróom loolu lépp la ci aju ak ba waxoon nañ ko ci bindu juróom-ñaareel bi nga xam ne moom lañ génn euh, bindub juróom-ñetteel bi nag daañu wax euh, ci soxna Xadija aslëf suñ ci jugee nag ci la ñuy wax ci diggante ñaar fukki at yeeg juróom jàpp fanweeri at yeeg juróom li nga xam ne moo ci gën a fés ci jaar-jaar ti bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci tënk euh, sayyidatuna Khadija euh, ku teddu askan la aw askanam mënoo ko tudd ca doo tuddaale maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moog yonent bi am nañu mbokkoo ci wàllug maam ci wetam yëpp nag moom Khadija kon ku sellu askan la ku teddu askan la loolu nga xam ne moo siiwoon ci seeni jamono ñoom ci lu jiitu lislaam nga xam ne xeetu xeebel ci wàlluk askan da ci daa feeñ waaye niiwaan nga gisit ku setu askan lool yàlla moom dafa mel ni bi mu tànn yonent bi mu setu askan yemu ci waaye dafa tànn lépp lu koy jege ak luy taq ca moom rek mu doon lu setu askan loolu nag daa feeñ bu baax a baax a baax ci sayyidatuna Xadija mi li ëpp ci téere yi nettali nag saxal nañ ne masoon na am borom kër li ñu wute kay mooy am na ci ñoom ñu saxal ne benn kenn moo ko mas yor kuñ naan abu xaala am na ci ñeneen nit ñu ne ginnaaw abu xaala am na ku ko yoroon waaye seen diggante dafa yàggut ñu naan ko atiq ibnu aib am na ci bokk ci bannu bannu bannu bannu bannu bannu Xuzayma ngeen baal ma bokk ci bànnoo Xuzayma am na ñu wax ne jëmm jooju ca la bokk waaye wax nañ ne diggante bi moo gàtt waaye Abu Haala moom euh, lu sax la ci li ëpp ci téere yi nga xam ne dañuy nett jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñenn rek ñoo ko dàq ci téere yi muy téere Shia yi Shia yi ñoom li ñu wax moom mooy Xadija kenn musu koo yor ñoom loolu la ñu wax. ñoom dañoo wax rek ne euh, sayyidatuna Khadija Mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam rek moo ko mos a yor waaye loolu day mel ne téere yi nga xam ne mooy téere yi kutubu kutubu ahlu sunna wal jamaa ñi nga xam ne ñoo sukkandiku ki euh, ahlu sunna wal jamaa di téere yi gën a tasaaroo ñoom li ñu wax mooy sayyidatuna Khadija am na ko ko mos a yor yàlla def nag mu nekkoon ku bari alal lool daa dimbali ndaw ñi bu baax a baax a baax rawatina xale yu góor yi ca jamono jooju ndax dafa amoon xeeti commerce boo xam ne nii bu masaa jot mboolem ndaw yi nga xam ne dañoo bëgg daan doole dañuy ñëw mu ràng leen maanaam dañ daa jóge màkka jëm saam marchandise mi ñu doon jëlee màkka bu ñu àggee saam dañ fay am njaay mu jar te bu ñu àggee saam it mën nañoo jëndaatum marché marchandise moo xam ne waa Màkka dañ koy soxlawoo loolu mu bokk na ci ni mu xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bi nga xamee ne Sayyidatuna Khadija xamees na ko ci alal ju takk jooju feeñoon na it fees bu baax a baax a baax ci ay xeeti nit yoo xam ne ay boroomi daraja lañ ci zahir ñoo xam ne ñëw nañ ci moom bëgg koo denc mu gàntal leen te li ko loon rek mooy li ko fi bàyyi mooy ku ko gën ci jikko lay xaar. wala ku mel ne moom ci jikko moo tax ba Moustapha ñëwee rek sallallahu taala alayhi wa sallam seeni at li muy soree soree teewut Xadija ci boppam moo sàkku Moustapha yor ko moo tax biñ gëstoo ba xam ne bu fekkee sayyidatuna Xadija bintu Xuwaylid la day kooku ku kuñ nangu la kuñu kuñ koo xam ne deesu ko gàntal côté mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ daal di doxale soxna Xadija mii nag da daa def saa yu ma saa gis lu mu lu ko jaaxal moo xam gént la moo xam daal lu ko arrivé la amoon na benn doomu ba doomu boo xam ne daa xamoon lu jëm ci kutubu samawiya jàngoon diya ilmu diyaanaat ba maanaam xam-xami téere yi asamaan yi xam lu bari ci mbirum yonent yi ñu koy wax waraqatu ibnu nawfal ci moom la daa dem di diisoo moom ci lu bari moo xam bu gisee gént gu ko jaaxal ci moom lay dem bu gisee lu ko jaaxal mbirum yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na ay yoon ca kanam dana feeñ bi bi nga xamee ne Jibril feeñu na eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njàmbaar gam ca feeñal buñu accès ci étape boobu danañ ci wax lu bëree bëri waaye daal Xadija ku ku ku amoon solo la ku amoon maanaa la doy na sëkk rek ngëneelam mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di lim ñeenti jigéen ñi nga xam ne ñoo ñi gën ci jamono jiital sayyidatuna Maryam alayhi salaam waajuru sayyidina Isa mi nga xam ne eh, kenn la ci yonent yi kenn la ci ulul azmi teg ca Asiya mi nga xam ne mooy soxna Firawna Firawna li muy bon bon soxnaam bokk na ci jigéen ñi nga xam ne ñoo ñu gën ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxna Xadija la ca teg teg ca doomam Fatima euh, bintu Muhammad kon jigéen ñi gën ci kaw suuf nam wadde ca ba bañ dee Mariama ak Asiya Xadija ak doomam lañ ca teg doy na ko ngëneel rek mooy mbooleem njabootu Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam yëpp moom soxna Xadija mooy seen waajuru jigéen kenn rek la ci jurut mooy caatum yonente bi ñu naan ko Ibrahim ca Ibrahim moomu euh, sayyidatuna Mariyatul Xibtiya mooy waajuram bu jigéen moom it buñ demee ba àgg ca jamono yee yonent bi doon bind leetar yi di ko yónni buur ya nga xam ne jamono jooju lañ joxoon soxna Maria ca jamono jooju nga xam ne ca la Ibrahima feeñe ak na mu wàcc liggéey yooyu yëpp buñ ca tollee danañ ko waxtaane kon daal soxna Khadija euh, mbokk yi euh, kuy feeñ la lool nag ci marxal makkiya ci lu baree bari waaye dana gën a fés ci moom a waxtaanam bi nga xamee ne euh, Jibril wàcc na ba jox risaale gi yonent nga xam ne yonent bi wéetoon na lool ci ku ko dimbali wéetoon na lool ci ku ko taxaw jamono jooju njàmbaaru soxna Khadija dana gën a fés danañ ci gën a waxtaan bi yonent bi amee fanweeri at ak juróom li gën a fés ci li ñuy nettali ci nga xam ne bokk na ci jaar-jaaram mooy xeer wu tedd woowu nga xam ne hadis ba sayduna abdullah ibn abbas doon nettali nga xam ne saxiixu tirmis yi indi na ko ñu wax ne xajarul aswad aw xeer la woo xam ne ajjana la bàyyi ko hadis ba sax da wax naan xeeru la woo xam ne daa weex tàll ba mel na galaas waaye bi mu ñëwee àdduna bàkkaar yi yi nga xam ne moom la doomu aadama yi doon def rawatina arab yi yañ doon def ca jamono jooju loolu moo ñuulal xeer yi ba mu waaye xeer bi moom sax ci na sax na ci yu wér ne yu baree bari ne àjjana la bàyyi ko am na sax ahadis yu wax ne mook aadama ñoo bokk ñëwandoo ci àdduna bàyyi ko àjjana euh, bi yonent bi amee fanweeri at ak euh, juróom comme ni ko borom nuurul yaqin nettale raxiqul maxtum nettale ko noonu ñoom ñëpp ñu jële ko ci siiratu ibnu Hisham wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi amee fanweeri at ak juróom arab yi dañ doon yee salaat tabaxu kaaba ga am na ci nettali yu naan mbënd mu metti moo amoon ba daaneel lenn ci miiri kaaba gi am na ñu ne lakk gu metti moo fa amoon ba daaneel miir yu bari ci ci ci ci kaaba gi arab yi nag liñ doon sàggan sàggan yëpp dañoo bàyyi woon xel néeg bi maanaam dañ ko respecté woon respecté goo xam ne respecté aada la teewul nag jaamu ko te xërëm lañu woon daanañ wax sax naan ñun de buñ sàgganee néeg bi nii ba mu raaf baa mbugalum yàlla du wadd seen kaw ñoom daanañ wax lu mel noonu moo tax bañ dëppoo ñoom xabaar yi yëpp ci waxtaan ci ne kaaba gi luñ war a yeesalaat la luñ war a defaraat la euh, bañ dëppoo ci loolu ba nga xam ne ña ngay yeesal ba àgg ca loolu ñuy wax xajarul aswad nga xam ne wax naa ko léegi nga xam ne ma nga ca koñub kaaba ga wax nañ ne mi ngi yëkkati ko mètre ak genn wàll maanaam digganteem ak suuf mètre ak genn wàll te bu ñuy tawaaf foofu la ñuy tàmbalee foofu la ñuy yem boo dee compter say tawaaf boo tàmbalee xajarul aswad foofu ngay tàmbale ne benn waaye fa ngay waxee ne benn it boo wëraatee ba agsiwaat foofu kon xeeru tedd la woo xam ne Mustafa sallallahu alayhi wa sallam masaa wër ba agsi fa wala bu masaa siyaare si eh, kaaba gi daana bokk ci li muy def xajarul aswad muy fóon ko loolu jullit yi ci moom lañ ci roy comme na xadisu Umar ba ñëwee ca lam ci doon wax di wax ju yaatu bi nga xamee ne xabaayil yi def nañ ba àgg nag ci xeer yii nag di xajarul aswad ku koy indiwaat place bi mu nekkoon foofu dañ faa juyaloo juyaloo juyaloo gu metti ba nga xam ne ñiy nettali sax nee nañ guerre boo xam ne nii entre xabaayil yi bu mag a mag a mag nar na fa am waaw ndax xabila bu ne dafa taxaw ne maa ci gën a yey maa nekk arab maa gën a nekk cosaan ci dëkk bi suñuy waajur ñoo yoroon nangam kenn ku ne tudd sok sharaf kenn ku ne tudd say daraja joo xam ne ni say maam amoon nañ ko démb wala feeñoon na ci xabila bi nga bokk waxiin woo xam ne nii daanaka yëkkati nañ dënn waaye fañ mujj dëppoo mooy euh, am nañu ne walid euh, walid ibnu muxiira moo jékki-jékki laaj wax leen na leen ndax da ngeen dëppoo ci ne suñ toogee bàyyee suñ bopp ne teg ku njëkk ñëw ci bunt bi xamuñu ku muy doon xamuñu fu mu bokk amut kenn ci ñun kuy xam kii njëkk na tëll fii ñu dëppoo ci rek ku njëkk na tëll rek fii mu atte ñu ca lum ñu wax ak lu man di doon kum arrangé kum arrangé wul lépp ñu ànd ca lool bañ demee ba nga xam ne wax ji sori na seen seen biir dañoo mujj ne ko d'accord nañ ci lool waaw léegi daal ku mën di ñëw rek baax na lu mu wax it bu arrangé suñu xabila baax na bu ko arrangé wut it baax na nee na toog ab diir ñoom ñëpp ñu ne selaw toog di xaar ku naan tëll ca buntu ba waaye ka njëkk na tëll ca buntu ba mooy euh, Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi sallam moo njëkk na tëll ñoom ñëpp dañoo jóg taxaw ne haadha al aminu radina bi xukmihi kii day mooy ku wóor ki ku wóor ki nga xam ne lépp lu mu àtte rek ñun ànd nañ ci lool nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiitu lu jiitu muy nekk bu yonent ñi ko gënoon a noonoo ña nga woon ca jataay boobu toog wala buñ ca toogut it seeni waajur ña nga woon ca jataay boobu toog ñoom ñoo waxoon ne kii mooy ku wóor ki nga xam ne lépp lu mu àttee rek ànd nañ ci loolu kon jàppal ne maanaam euh, juuyoo gi gën a rëy ci taarix ba mu amee ci arab yi yonent bi moo leen àtte àtte goo xam ne sakkuwut ci moom sakkuwut moom Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ne ñëw leen mu àtte leen waaye ñoom seen bopp ñoom ñoo ne ko radina bi hukmihi ànd nañ ci lépp loo xam ne nii àtte na ko euh, biñ waxee loolu ñoom ñëpp amu ci kenn koo xam ne ni daal wax nga lu juyoog li ñu wax maanaam daal ñoom ñëpp ànd nañ ci biñ ko leeralee histoire bi ne ko nag bàyyee nañ la atte bi loo atte rek lu nay saxel rek defal keroog yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xarañam ci baaxam ci maandoom ci tëddee ndaa njaaxaandaay waaye ci yaatu dënnam daa laaj ñu jox ko mbalaan moo xam ne nii dañ koy lal ci suuf lal lalee mbalaan bi ñu jël xajaral aswad moom moo ko yëkkatil boppam ci loxo ndeyjooram teg ko ci digg mbalaan mi daan ne mboolem ñi bokk ci xabila yi dafa bëgg xabila bu ne ka ca mag mu jug taxaw xabila bu ne ka ca mag wala ka ca gën a fés wala ka ca ëpp daraja daal di jug taxaw yonent bi ne ko jàppal fee te booba ndaw la loo xam ne nii fanweeri at ak juróom la amoon te na ñañ too ca jotaay ba bari na ci ñoo xam ne nii ñoo magoon waajuru yonent bi di Abdullahi ibnu Abdul kenn ku ci nekk ba xabila yëpp mat mu laaj ne ndax ñëpp jàpp nañ ñoom ñëpp ñu ne xabila bu ne diw sàngam mii day moo ñu représenté jàpp na ñu xool mbalaan mi yëpp mboolem ña teewoon ci bi ñëpp jàpp nañ ci benn koñ nee na mu ne leen ñëw leen ñu ñëw a ñëw a ñëw ba fi ñu war a teg xajarul aswad mu ne leen wàcce leen fa mbalaan ma ñu wàcc fa mbalaan ma daal di diri xeeru daal di rës nekk barab ba nga xam ne fa lañ ko bëggoon a teg ñoom ñëpp ñu daal di joxante loxo muuñ ree saafonte sant yàlla yéemu ci xereñu Mustafa sallallahu taala alayhi wa loolu lenn la ci fes yi fes ci eh, jaar-jaar yónent bi lu jiitu ñu koy yónne kon moom mii di Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ngi ko doon woowee lu jiitu muy nekk yónente ñi ngi ko doon woowee al amin soxna Xadija mii ma doon wax léegi at tahira lañ ko doon woowee kon yónent bi Euh, li xew tey ba nga xamee ne ba mu wootee ne yonente la ñoom ñëpp ñu jugandoo wut ay tur yu ñaaw di ko ko woowee wut ay dakkantal yu ñaaw di ko ko woowee wut ay tuuma yu ñaaw di ko teg ci kawam loolu bam mu nekk gutub yonente dafa mel ne safaan ba lañ doon def ndax ñoom ñoo tub ñoo wut tur yu ñaan al amin ñoo am problème bi gën a rëy ci problème yi problème bi nga xam ne moo gën a marqué ci taarix ci jamono jooju muy juyoog arab yi ci mbirum xajarul aswad ba nga xam ne xabila yi liñ doon juboo juboo juboo di takkante ci seen biir di jaayante ci seen biir di jëndandi ci seen biir pare woon nañ pour def guerre boo xam ne seen biir la ñuy guerrante di xeexante ci seen biir ba ko gañee jël xajarul aswad teg ko loolu ka leen ci dimbali ba guerre boobu amul xeex boobu amul mooy ki nga xam ne moom lañ jël tuuma yi teg ko ci kawam moom lañ jël wax ju ñaaw ji nga xam ne bi mu wootee ne bi yonente la wax yooyu yëpp commencé ñëw ci deram bi moom sallallahu taala alayhi wa sallam euh, kon buñ ne fanweeri at ak juróom day mel ne dañuy jege lool ñeent fukki at bi nga xamee ne am na fanweeri at ak juróom ci la lii xew euh, ñuy dox ñu di ko woowee al amin wóolu ko lool mu mel ne al amin ak at tahira ca jamono jooju lool lañ daa wax al amin mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam at tahira mooy soxna xadijatu jub googu noonu ak sell googu noonu ak baax googu noonu ak lewet googu noonu ak mbëggeel gi nga xam ne mboolem ku nekkoon màkk lu muy kàccoore kàccoore joxoon na cër Moustapha lim doon doon doon ndaw ci seeni gis-gis bi nga xamee ne nag euh, mi ngi tàmbalee am ñeent fukki boobu nag daa def saa yu demut ci liggéey lim gënoon a bëgg mooy ab wéetaay daawut toog ci ay garam place daawut toog di waxtaan saa yoo xamee ne ni rek liggéeyut lim gënoon a bëgg lool muy wéetaay wéetaay googu nag da ko daa jaral muy dem ci xunt yi ak ci àll bi ak ci xuru màkk yeeg xeer yi di fa toog te loolu euh, war nañ ci indi ay leeral yoo xam ne ni ci diggante xeer yi wala place yi nga xam ne moom la gënoon a taam ak lan la doon def ca place yooyu noonu ak nga xam ne moom la doon def ci xunt yooyu noonu ak ci àll boobu ak place yu wéet yooyu noonu lan moo ko ca dikkal ba mu ko ca dikkalee lan la ko jural loolu lépp ay tontu la yoo xam ne suñu bind yii di jëm ñëw incha allahu taala lañ ci wax kon daal tey liñ bëggoon a wax rek ci gàttal mooy indiwaat ak dollee soxna soo suñuy wax at-Tahira muy sayyidatuna Khadija radiyallahu taala anha waaye indiwaat benn tomb boo xam ne ni lenn la ci tomb yi nga xam ne gën naa fés ci jaar-jaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu jiitu muy nekkub yonente mooy problème bi nga xam ne mu amoon ca xeer wu tedd woowu ñëwee alxajarul aswad am ci nettalikat yi koy wax naan alxajarul ashad maanaam xeer wi nga xam ne mooy bi gën a tedd wala xeer wi nga xam ne mooy xeeru ñuul wi nga xam ne moo bàyyi ko euh, aljanna de xeer wu barkeel woo xam ne sidna omar nee na ko woon su ma gisutoon yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam foon la man omar la foon kon fon gi ma lay fon damaa gis Moustapha fon la xadis bu gudd la boo xam ne euh, amoon na mu naasaba bu taxoon mu wax wax wax jooju noonu euh, kon mbokk yi euh, suñu bind bii ñu jëm nag wala bind yi ñu jëm nag daanaka nag si la ñuy doog di dugg nag ci waxtaanu séeréer yi dëgg dëgg dëgg dëgg ndax yëf yi fi muy feeñe mooy bés ba nga xamee ne am na ñeen fukki at ba Jibril wàcc nag di ko xamal ne ko bi yonente nga foofa nag la tur yu bari di fes yi ngay dégg foofa la njàmbaar gu bari di fes yi ngay dégg foofa la lu baree bari di feeñ nag rawatina ci tàmbali bi fii ñuy waxee marxalatu makkiya foofa nag la njàmbaaruk sayyidatuna Xadija mii nga xam ne euh, lim dund ak Mustafa taxul mu yaatu lool ndax fekkiwu dara dara dara ci marxala madaniya foofa la ñuy xamee ne dëgg dëgg dëgg nag kii mooy jigéen joo xam ne euh, mooy roykaay bi gën a kawe ci soxna yi moom soxna Xadija radiyallahu taala anha kon mbokk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Cheikh Abdul Qadir ci taxawaay bi ak bu rafet bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wal imaamu imaamul mursaliina ma'an wal anbiyaa'i yaqiihim fil jawwal umamaa yawmal qiyaamati taati rusulu qaatibatan wal anbiyaa'u